mbokk yi ñu ngi am kontante di dellusi ci jataay yi ñuy amal ba léegi ci weeru koor gi di jéemaan leeral ak shara buntub koor ci téere bi di almulaxas alfiqi bu suñu cheikh al allaama saalih ibnu fawzaan al fawzaan na ko borom bi subhaanahu wa taala sàmm te wattu ko ñu ñëw di yeggale buntu bi nga xamante ne ni commencé woon nañ ko te mooy buntu bi wax ci tàmbali wooru bis bi ak njeexitalam ñu amoon ci ñaari jataay tey ñu ñëw ngir àggale li nga xam ne moom mooy bunt boobu ñu ngi taxawoon di woon fi cheikh bi waxee wala budda an yanwiya siyaam asiyaam alwaajiba min al leyl muy cheikh bi fi mu ñëwee di dugg ci fi nga xam ne moom mooy moom mooy yéene muy masala bu aju ci wàllu yéene ci wàllu koor kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu الإخلاص أسأل الله عز وجل أن يلهمني الرشد والسداد والتوفيق في الأمر كله قال الشيخ حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية ختم له ولنا بالحسنى ولا بد أن ينوي صيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله taala cheikh bi fii mu ñëw ñëw di leeral masala bu am solo ci koor te mooy masala bu yéene mu ne ki nga xam ne dafa nar a woor il faut mu yéene ki nga xam ne dafa nar a woor ne koor goo xamante ne koor gu war la c'est-à-dire du koor gu naafi la koor gu war la farata la cheikh bi mu ne kooku mënul ñàkk mu yéene ci li nga xamante ne moom mooy guddi ga ca ca guddi ga balaa fajar cheikh bi mu ne kooku bu yéenee fekkee yéene woon na ca guddi gi waaye de yàlla dogal yeewu lu dul bi fajar gi fenkee ba pare nee na kooku day continuer jàpp koor ga daal di continuer woor te ak kooram wér na mat na sëkk incha allah bés bu nekk ci bési koor yi danga kaa war a jagleel li nga xamante ne moom mooy yéene bés bu nekk dafa jagoo ab yéene ci weeru koor gi bés bu nekk ci koor gi li war jullit bi bala moo woor comme suba war naa woor daf ko war a yéene ci guddi gi te doy na rek ci yéene nit ki bu yeewoo heure xëdd dugg na ci yéene woor li xam ne moom mooy weeru koor jarul mu koy tudd ci làmmeñam parce que kenn du ko tudd ci làmmeñ dañ koy fas ci xol bokk na ci bidaa mooy nit ki naan yéene naa pour def nangam waaye yéene ci xol lay fasu wala nit ki ne diw nanga ma yee bu xëdd jotee kooku yéene na pour woor wala bala muy nelaw ci guddi gi sax mu yéene bala muy yeewu fajar bu yeewoo wooree kooram baax na kon yéene kenn du ko wax ci làmmeñ kon yéene bi ci guddi gi waxtu bu mu ko defee baax na su ko defee ci commencement guddi gi baax ko defee ci euh, guddi gi xaajee baax na bu ko defee ci mujjantal guddi gi balaa fajar gi fenk baax na waaye ne yéene balaa fajar gi di fenk ne moom day woor كل المي مثلا ياني الشيخ أه، منى ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولو ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله الشيخ منى الفو كي ki داي xam ne day مو فنانو farata mu مو li nga xam ne moom mooy yéene ci guddi nee na bu ɗo fajagge fenke boba walillahi alhamd dey continue woor ak kooram lu wér la ak kooram lu mat sëkk la incha allah cheikh mu ne wa yustahabu taajilu aliftar ida taxaqaqa غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بآذان أو غيره cheikh mu ne bokk na ci li ñu sopp ci li nga xamante moom mooy koor mu nekk sunna mooy gaawtu bu jant bi soowee gaawtu li nga xam ne moom mooy dagg dokk te mooy dagg li nga xam ne moom mooy koor gi gaaw jël tàndarma lekk ko wala bu amul tàndarma nga jël ndox bu amul lenn nga yéen dogg ndaxte loolu bokk na ci sunna yent bi salaa te mooy bu ñu demee ba leer ne jant bi sona moo xam dañ kaa gis mu so wala alhamdulilah dogu nañ ne jant bi dugg na wala xibaar bu wér ñu dégg ak nodd ci jàkka wala lenn luy xamle jant bi sona bu boobaa jullit bi warul yeexee li nga xam ne moom mooy ndog lu mu nekkoon da ko war a bàyyi ñëw gaaw li nga xam ne moom mooy moo nekk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xamantene ni saxaaba bi di sahl ibnu saad yàlla ko yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalu lfitar ne nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi duñu dañ mukk di nekk ci aw yiw feek ñoo ngi gaawee li nga xamantene ne moom mooy dog ci koor kon lii di gaawee mooy dog bokk na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu leeree ne li ليدي جنت بسنة تمس تقنا حديث منك حديث بير الإمام البخاري والإمام المسلم جنة كوتشي بنت بكور muy wax ba léegi ne yonent bi sal allah sallam qaala sal allah sallam fi ma yarwihi an rabbihi aza wajal inna axaba cibaadi ilaya acjalahum fitra mu ne yonent bi sal allahu alayhi wasallam nee na ci xadis alqudsi xadis boo xam ne yonent bi saa sallam da koy nettali ci boromam direct nee na yàlla subxaanahu wa taala nee na إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة كي جنا نك سما بسوبيجي سما جامدي موي كلين جنا جاو كلين لكو كون جلبي بي ورول دي خلينا خمن تاني ما موين لكو دفع وردي جاو جل لكم تبو كليرين جنتبي سنة كون لول منك جف جو خمن تاني yalla subhanahu wa ta'ala صوب nek ko xamanteni ni ku ko takko di nga nek sopé yalla subhanahu wa ta'ala kon bokku na ci li waral julit bi موي موي قاوي لكو بنجكو ياخي والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتم فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء رواه أحمد وابو داود والترمذي بوكو نتي سنة موي بو امي لي نغا خامن موي رطب تا موي تاندر ما بو توي بي امي تنانين واو بو بيس بو توي دال دي جون تاندر ما بو بو بوكو امي بوكو نتي سنة نغا دال كوي ندوكو موم لا يونتبي صلى الله عليه وسلم دون دوكو موي رطب نينا بو فيكي امو رطب نينا نغا ندوكو لي خامن موي تاندر فاصون تاندر ما بو ماندي دون تاندر ما بو واو ولا بو ياغ بو ماندي دون نغا ندوكو تاندر فيكي امو تاندر nga doog li nga xam ne moom mooy ndox naan ndox bu fekkee amu tànn bu lekk nga nekk naan li ndox te loolu li koy tettale mooy waxu anas di saxaaba bu màgg boobu di anas ibnu malik yàlla ko yàlla gërëm mu ne woon xaadimu rasulullahi salallahu alayhi wasallam sallam di xidmaal yonente bi salallahu alayhi wasallam di ko liggéeyal nee na yonente bi salallahu alayhi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat nee na yonente bi salallahu alayhi wasallam sallam daana ndogu bala muy julli timis daana ndogoo lii mooy ay rotabaat mooy tàndarma ju tooy ji nga xamantene ni ju bees la nee na su fekkee amu ko woon mu ndogoo li nga xam ne moom mooy tàndarma bu mu am tàndarma bu bu mu am nee na bu fekkee amul tàndarma nee na daana dogoo li nga xamante ne moom mooy ndox dal ci góox ay góox nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam su amul waan tàndarma daana góox ay góoxi ndox nee na loolu moo ne woon sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis boobu imaam ahmed génn na ko abu daawud ak tirmidi kon képp ku wóor ba timis fekk la lii muy sunna waaye lu wuuteeg loolu nekkul loo xam ne lu ñu yoonal la comme ni ko ñeneen ñi defee bu leen ndox fekkee ci àll wala foo xamante ne yoruñu lu ñu lekk yoruñu tàndam yoru leen ñuy màcc seen baaraam loolu nekkul loo xamante ne am na tettal wala ñu yoonal ko ci diine loolu ñi réer ñoom ñoo koy def ñi xamul waaye bu leen ndox fekkee ci àll amoo loo naan amoo loo lekk da ngay yéene ci sa xol ne dog nga nga yéene ci sa xol ne dog nga bu boobaa génn nga ci li nga xam ne moom mooy koor gi am na ñoo ne bu leen dog fekkee fenn amuñu lu ñu lekk dañuy wane seen loolu tamit nekkul li nga xam ne moom la ñu yoonal dog daal fu mu la mën fekk yoroo lekk yoroo naan da nga yéene daal di ne génn nga ci li xam ne moom mooy koor gi ndaxte jaamu yàlla soo ciy dugg da ngay yéene da ngay fas ci sa xol yéene daal ci dugg nekk noonu boo ci génn da ngay fas ci sa xol nit ki bu yéenee génn na ci koor gi am na yoolu ku dog ci waxtoom même bu fekkee amul lu mu lekk amul lu mu ndogu nga xamante ni dañu dañu topp ndogu bi topp lekk gu bëri gi di yeexe jullit mbooloo ca jàkk ja mën na leen a raw ñu ay njuumte ci loolu te mooy tarde li nga xam ne moom mooy jullit mbooloo ca jàkk ja waaye li nga xam ne moom moo nekk sunna mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa doon def su ñu noddee li nga xam ne moom mooy timis nga lekk lu woyof tàndarma naan ndox naan tuuti lu woyof dem julli timis boo jullee timis ba pare nga ñëw dal di àggale li nga xamante ne moom mooy sa ndogu loolu mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daana ko def mooy da daan lekk ay tàndarma ay ay tàndarma yu tooy te mooy rotab bu ko lekkee wala tàndarma wala bu amul rotam lekk tàndarma su ko amul naan ndox dem julli ji bu julli jee ba ñëw àggale li ndogoom loolu mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh mu ne fa in lam yajid rutaban wala tamran wala maa aftara ala ma tayassara min taamin wa sharab nit ki bu fekkee amul tàndarma bu tooy amul tàndarma bu wow amul benn façon tàndarma pour lekk amul ndox waaye lekk moo ne ci kanamam mu jéem a doge li nga moom moo yombandi ci kanamam te mooy lekk mu ne wa huna amrun yajibu tanbihu alayh wa huwa anna baada an-nas qad yajlisu ala ma'idati iftar wa yata'asha wa yatruku salat al-maghrib مع الجماعة في مسجد فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك بايلو خيل نيت ني تي بن بير موي ني نين ني داني توك بو ني نود دي تيميس دي ليك دي ليك توب ندوغو بي توب ندوغو بي بايلي خنو موي جوليك تيميس بامو راولين تي جاكا جي ولا مبولو مي راولين ني دال دي تابيج بكار ان نيوم تيلو ماك تا موي ييخي ليغا خمانت موي جوليك مبولو با ني خاج سين بوب يول بو ري ري li nga xamantene ni mo moy julli mbooloo ca jàkka cheikh mu ne li ñu yoonal ci ko woor mooy mu njëkk a dog moo xam dàndarma la wala ndox bu dogee dal di lu woyof naan ndox dal dem ca jàkka ja ginnaaw bu jullee ba pare nag bu ñëwee daal di soog a reer naam cheikh mu ne wa yustaxab an yadcuu cinda iftaarihi bima ahab qaala sal allahu alayhi wasallam inna lisaa'imi cinda fitrihi dacwatun ma turad ومن الدعاء الواجد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله شيخ من ne bokk صب ci li ñu sopp بوري با دوك جوت منيان نيان يالله سبحانه وتعالى لبلو مبكر ñaan yàlla subhaanahu wa taala soxlaam ci ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci benn xadis nit ki kat bu wooree ba muy ndogu am na ñaan goo xamante ne ni kenn du ko delloo bokk na ci fii ñi nangoo ñaan mooy nit ki bu demee bay dog kon dee leen dee leen bàyyi xel bu baax bu ngeen toog ngeen ñaan seen soxla ñaanal seen mbokk ñaan seen soxlaay àdduna ak seen soxlaay àllaaxira ñaanal lépp lu ngeen soxla te bokk na ci ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan mu rot موي مونيان نيان جي يننت بي صلى الله عليه وسلم دونيان تموي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى كن ياري حديث رنا انت واي حديث مجكبي حديث مجكبي حديث بوبو دفخ فيبر تموي اللهم لك سمت على رزقك أفطرت حديث بوبو نون ويرت أي حديث بيغامنا مو موير موي يننت بي صلى الله عليه وسلم نيان جي لدون نيان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي ورش أبدو مي مجانج أتي كور غير مي àttee koor ngir muy dog ci waxtu waaye mu jàng joxe li nga xamante ne moom mooy koor ci ni ko yàlla subhaanahu wa taala yoonale ci lu dëppoog sunnaay yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax ak kooram nekk lu wér ay jëfam nekk loo xamante ne yàlla dina ko nangu fa ndaxte loolu bokk na ci li ëpp solo ci mbir yi ndaxte yàlla subhaanahu wa taala nee na ci alquran laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma al axir wa dakara allaha kathira yàlla subhaanahu wa defna naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk seen royukaay mu nekk seen référence kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku dib julit ci moom ngay roy amul waa roy ci keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko xam ne yaakaar nga yàlla subhanahu wa taala ak bisu yowmal axir te mooy bisu penc nit ki ak jaamu yàllaam da cee war a roy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax lii di ay jaamu yàlla ak taxawandi la kenn amul sañ-sañu def ko ci lu dul ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa santaane ak ni mu ko defee kenn amul ab sañ-sañ indi ci say góor-góorlu yu bopp wala say mbiri bopp ndaxte jaamu yàlla lu ñu taxawandi la mooy lislaam dalay wax defal nga def bàyyi nga bàyyi naam amul lenn luñ ci dugal ci bànneex bu bakkan wala di rafetlu lenn li rafetlu lenn ak di ko ñàkk rafetlu waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom moo yoonal xeetami naka la ñu jaamoo yàlla ak lan la ñu jaamoo yàlla subhanahu wa taala moo tax saa sallam waxoon ci benn xadis ne faman raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xamante ne nii bëggoo sama sunna bokkoo ci man kon julit bi muy def kéemtalay kàttanam di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jaamu yàlla gum mën di def moo xam koor la moo xam julli la muy julli muy jàng julli comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale jàngal ko saxaaba yi di jullee comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy woor mu xam attey koor xam koor bi sallallahu alayhi naka demee woon kon ab jullit loolu la war a xantee xam kon suñu jataayu tey bi dañuy yemale foofu waxtaan wi di ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal ñu tawfiq defal leen tawfiq ci lépp loo xamante ni bëgg na ko te gërëm ko ñaan yàlla subhana taala mu wërsëgaleel ñu xam-xam buy jëriñ jëf ju sell joo xamante ni nii moo ànd ak xam-xam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu leen ci ñi am pay koor leen ci ñi xam ne ñoom lay nangul seen koor wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam